bon Taïnak, nag jonge et c'est tout juste après ça. les mêmes histoires d'amour les mêmes points qui mènent nos cœurs vers la porte d'aller sans retour les mêmes larmes qui coulent même sort qui mouille même dose qui saoule les mêmes âmes que nous foutent la trouille. Et voici Pode, et ses le gentleman des blocs qui cible les filles avec ses vignettes et qui Le premier point. c'est que jonge loo bëgg ñu xamné ne yëfu jigéen la du yëfu goor des fois da ngay dégg jigen ñu naan goor day joy mais lui jonge ci goor ana goor ak joy goor du jonge te lu ma si gën a métti ay góor punkalu góor yi fay da ngay dégg ñu naan dama jonge goor du jonge goor day galant il faut savoir faire la différence entre galanterie ak jonge maa ko wax mais waxin mom dégg la laaj Pod qu'est-ce qui n'a pas marché. yow laa koy lenn rek laa bëgg mu tontu ma nan la ñuy waxee galanterie ci olof.